asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu sunu gan yi fi teew comme ni ma ko defee ci français di wax ni fondation LONASE dafa ñëwoon tey dalal ci ni mu ko tàmm di defee ci taxawu sénégalais yi ci bu ñu amee bànneex wala ñu am tiis wala ñu am njàqare ci biir loolu ñu dalal tey euh, une délégation boo xamante ni ci armée bi la jógee bi nga xam ni Euh, fan yee paase am na sunu ñeenti soldats yoo xam ne ci seen biir liggéey fële ca Casamance ñàkk nañ ci seen bakkan euh, LONASE nag doon société boo xam ne société sénégalais yëpp la ñëpp a ko bokk ñu jàpp ni loolu bu dalee ci kaw armée bi dafa dal ci kaw Sénégal yëpp moo tax ñu xalaat ñu war nañoo mën a indi sunu ndimbal jàppale famille yooyu nga xamante ni seen doom wala seeni i kër seen i rakk seen i mag ñoo fi jóge ku nekk ñu jox la enveloppe cinq 5 millions muy 20 millions waaye aussi ñu dimbali kër jàmbaar yi nga xamante ni blessé de guerre yi dañ fay yëngatu ñu ne ci armée bi jox leen aussi quinze millions muy enveloppe bu cinq millions boo xam ne dañ koy dimbalee armée bi ak seeni i ñuy wax rek ne euh, ñu leen bàyyi xel lañ parce que réew mii boo leen fi gënul kenn gënu leen ndax euh, sénégalais bu fi xalaate tëdd nelaw wala nga mën fee dox ci mbedd mi mu leer la ni kenn du la attaqué euh, yéen a ñu ko defal donc société bu mel ni Lonase mënul di def lu baax feneen fu ne te te defalul leen ko yéen bu boobaa day mel ni euh, dinañ def yëfu sàmbaalaar waaye ñuy ñu leen di dalal seen xel ci di leen wax ni ci bépp fànn ci saa ni ci ni ñu ko mënee di ngeen mën a conté sur la LONASE ci jàppale leen ci dimbale leen te xaaruñ ci dara lu dul yëg ni sunu war a def nañ ko ci yéen naam sax suñu yéene euh, doole ji matewu ko waaye fas yéene nañoo nekk seen wet jàppale leen ci suñu kéemtalaay kàttan da ngeen xam ne liggéey bii ngeen nekk gannaaw njàppal ndimbalu président de la république gannaaw ndimbalu général chef d'état major des armées am ngeen ñeneen ñoo xamante ni incha allah di ngeen mën a euh, euh, sukkandiku ci seen ndimbal. may wax ne lii fondation LONASE def yeneen i fondation wala yeneen i société national war nañ koo mën di def di bàyyi xel ñi nga xamante ni dañoo yor suñu kaaraange te léeg-léeg ñuy nekk ci situation yi méttee métti duñ ko wax duñ ko xumtoo te kenn leen dégg. Euh, ndax seen professionnalisme ndax seen ngor ndax seen dignité te loolu laa amoon lu may wax di leen wax ni monsieur le colonel ñu ngi leen di jaajëfal ci turu sama tur di leen jaajëfal ci turu LONASE waaye bu ma ko sañee sax ne ci turu Sénégal yëpp ndax Sénégal yëpp ñoo leen di jaajëfal maa leen di gërëm di leen sant. bonjour monsieur le directeur général de la LONASE permettez de me présenter je suis le colonel Ndiagne Diouf donc comme l'a dit le DG. donc directeur de l'action sociale donc de l'armée. Donc madame l'administratrice de la fondation, monsieur le secrétaire général, monsieur chers, les chers invités, donc c'est un réel plaisir donc, de représenter aujourd'hui les forces armées. Donc sur instruction du chef d'état-major général des forces armées, donc je suis venu donc répondre vraiment à l'invitation du directeur général de la LONASE par un acte vraiment patriotique pour venir vraiment recevoir la contribution de sa société vraiment pour l'accompagnement de nos camarades. En tout cas, juste un mot de remerciement, de gratitude de toute l'armée sénégalaise à l'endroit de la LONASE et de sa fondation. Et merci encore. à tout le